nga dalal hôtel te ku ci nekk chambre single nga ko jëlal jaaju Mamburu yàlla na sa jàmm yàgg kookoy Abbas jaaju waaye nag aw buuru kër muy Fatou yow kenn du yow dëgg la ndax bu ma dugg see woon su ma fekkoon ne damaa ñëw nga ne ah kii woykat la kii dafa siiw duma ko xoolee bëtu doom duma ko xoolee bëtu rakk duma ko xoolee bëtu koo xamante ni ñoo bokk jëkkër dama koy xoolee bët boo xamante ni nii sama rakk nga bañ nga ko ba doo jaar ci sama tur sama doom rek nga may wax moo tax ma lay ñaanal jaajuma yow Fatou Bodia li nga bëgg ci sa njaboot yaa ko xam yàlla na la ko suñu borom defal ci barki Seydina Mohamed waaw man duma wax lu nekkul ci man ku ma xam xam ne man lu lu lu bu ma waxee dara rek ci sama biir xol laa ko jëlee waaye yow danga maa yiir uuf ma ngoone bari ki démb dama def ma woo ma ne ko mu ma jël mu ne ma Aida Samb ni nga nuroog sa wujj bi dafa ma jaaxal keroog bi nga toogee di def séance d'écoute bi dafa mel ne faatu moo toog du dara nag nuróole bi dëgg la waaye xam nga lan moo ko waral bëgg gi ma bëgg sincère gi nga sincère sama diggante ak yow ndaxte nag mi ngi bëgg a yàgg bientôt deux ans de mariage may ñaan suñu borom bàyyi ñoo suñu allaaji bii nga xamante ni nii eh, moo ñu bëgg moo ñu yiir moo ñu namuñu dara nag barke Sëriñ Bamba namuñu dara lépp lu jigéen di defal lépp lu góor di defal jëkkër jabaram suñu jëkkër ji mu ñu ñu koy defal fu nooy la ñuy tëdd bañ na ko ba kër gi ci ngay dëkk dalay lay mettre à l'aise ba doo am looy soxla ci biti ba di ko wuti eh, eh, eh man ma ni yéen bu seen wujje neexul kii wujjeem neex na waaye tàccu leen ma Aïda Samb bu baax waaye muy wax rek ngeen koy seetaan nii li muy wax dafa am solo parce que wujjee dafa metti et ñaari jigéen wala ñaari jeeg bu ñu d'accord ak seen borom kër dañu ko noppal tey bu Aïda taxawee fii di sant Fatou Fatou toog di sant Abbas dama ne yéen salle bi ñëpp dañoo war a tàccu ngeen toog di seetaan waaye tàccu leen lii waay ku ci wujjeewul boo tàccuwul yàlla nga wujjee ku ci wujjee boo tàcc yàlla nañ la dolli tàccu leen lii waay yaay sama yaay maam yàlla boo wujjee aba acca acca ayda kooku suñu yaay la du wujjee ñëwoon rek waaye Cheikh soxol sedd waaye waaye leen rek dem dama leen di ñaan nag na ñëpp jóg baby ma baby man tey ma woyal la soo bëggee nga tàccu ma feccal la loo fa maa la bëgg ba dof baby xaw ma lii lan la mọ́ lọ́wọ́. I love you baby tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú mọ́ yóò yẹ wíyá kay mu nooy rek. I know him. I love you baby amore mio. superhero. yaa may miirloo. yaa tax du ma ngiiroo. biir néeg ba nga ma. somta ñu ñu nam pam pam. ma jaaju ma mbure ay ay na nga ni sa tusu na ci suuf waay képp ku sa xol neex rek sa loxo ci kaw jaaju séri ay la jaaju ma mbure ay séri waaw waaw jëkkër ji ma yàlla booleel mu may bégal mu may sagal di may teral maa lay bégal jaaju mam bu rëy tu sunjata kayita bilaay wayal ay de way ko jaaja mam bu rëy Sénégal Cheikh Fatulaay wayal man aaw buuru këram bi nga duggee ci kër gi ba léegi Fatou defoo fi lu ñaaw lu lay xoole wax leen aaw buuru këram ko koy aaw dem ci aju jëkkër ji ñu yàlla boole sama yaay jile yaay sama përëm njëkke man dama la bëggoon lool yàlla def Abbas may la njëkke may sa doom nga xam ne may sa doom nga bëgg ma lool caane bëgg ma lool sama yaay ji yaa bëgg Abbas mbaya dëgg Abbas mam njaay a ngi chéri mbay jaye ngi sama yaay jangi yaa ma bëgg ba mu jeexloo sambaay samaam ani ani gawlo kuy gawlo jógal seen doom jangi maam sambaay maamam ay da sam soo ji liggéey bem jigi sam la ganjuleen siri sa maam siri sa maam